voilà tey nag euh, ñu ngi dalal euh, suñu gan mu di. Euh, <laughs> mais yow nii la ma laa nuyoo. Ah, waaw xam nga lu tax. lu tax da doon sénégalais bu bu am njëriñ. Uh-huh. ci àdduna bi. nekk kilifa. sénégalais yi war la gën a xam. merci beaucoup Baye Assane mais en tout cas merci ci invitation. jërëjëf. voilà donc suñu. gan a ngi doon maa ngi lay delloo ziar. nag journée ça va sant ah, plaisir ingénieur. mais ingénieur. quand même je pense que c'est la première fois. Euh, ingénieur dans l'aérospatiale. Euh, scientifique. et scientifique euh, téléspectateur. Hmm. ingénieur dans domaine vague mhm. donc je suis scientifique aussi. Euh, docteur en physique et mathématiques. Donc, pour commencer, comme par aérospatial, je vais <laughs> uh-huh. commencer par une question mm-hmm. le temps que l'émission émission dérouler. Ah. on ndax qui parle. <laughs> émission surprise réponse commentaire exact. imaginez que gaal gi nekk ci digg dex bi gaal gi amul loo mën a jooye yow kenn yaa ci nekk gaal gi am ay xeer ay xeer rek ci nekk mais ci biir dex gi nag dafa am jasit ça veut dire que utiliser say loxo pour joow et yaa ngi seen tefes gi nan ngay def pour dem ci tefes gi te gaal gi daa ay xeer waaw gaal bi moo am ay xeer gaal gi ay xeer rek la am yow yaa ngi ci gaal gi waaw nekk ci digg dex waaw yor nga pañe wat non yoroo kay yoroo loolu yoroo dara waaw xeer rek nga yor. waaw ak yow. Hmm. ci gaal gi. leen xam naa ko. toog ci gaal gi. mais problème bi mooy gaal gi mën na diig. waaw ak xeer yi. non gaal gi diigul. diigul gaal gi attan na xeer yi. na xeer yi. xanaa toog ci toog ci ci gaal gi. maandu. bu dee courant am na. mu drive ma ma topp. xam nga dex yi ba xewoon ñëw. xam nga dex yi tamit euh, duñ bëri courant. bariwul courant. te dex la du géej. dex la loolu kaala la te lan moo ne ci biir crocodile. Hmm? ay crocodile ñoo ngi ci kii donc mënoo feeñ. te mënoo mënoo feeñ mënoo wàcc mënoo dugal sa loxo. ah ba déedéet. tari fatiha ay kursi. <laughs> toog xaar yàlla. ànd ak ah, suñu borom. suñu instinct de survie bari moo jaww wuy ma rafet njott na. Ah. parce que yàlla boo ko wóoloo da rafet njot loolu dëgg la tani jàkkaarloog moom loolu dëgg di xaar suñu borom loolu dëgg la waaw dafa mel ne Jobaas la doon wax de Sénégal bu ñu amul réponse scientifique bi rek daa daal di wékku ci ah. yàlla nag gis nga li ma lay wax ni <laughs> moom mooy base de l'aérospatiale hmm. ok ah, l'aérospatiale ci euh, ku ñu jàpp ne ci base bi la bokk ci kooku la ñu tuddee Tcholkovsky donc c'était euh, un scientifique borom xam-xam russe mhm.

xeer bi day def réaction ci yow ñun ci suuf lañ taxaw moo tax doo ko sentir mais boo nekkee ci gaal nga xam ne dafa oyof day bouger ak chaque fois nga sànni xeer ci ginnaaw. mouvement la day créer mouvement loolu la tuddee action réaction. Mhm. donc plus ngay sànni xeer yi ci ginnaaw plus sa gaal di jëm ci tefes gi. ça n'a rien à voir ak euh, principe bu Newton yi par rapport ak. non euh, non non loolu la ñu tuddee l'équation de Tcholkovsky. d'accord en gros daf ne euh, vitesse bi ngay sànnee dara. Mhm. ak diisaay li mu nekk. Mhm. rek mën na la dimbale. mais mais boo sànnee jasit ya noo def. <laughs> moom ke jasit mom moom dañuy dem ci liga nga parce que dañuy yaakaar ne yàpp la wala leneen. <laughs> mais di nga dem ba ag donc c'est ça la base de l'aérospatiale. donc euh, imaginez tu lu ndaw loolu noonu. ci lu ndaw loolu noonu dem ba jour fim mu toll nii ñuy lancer ay fusées. ci hmm. ñuy lancer ay nit muy dem ba sur la lune. et que ñuy xalat maintenant yobbu nit ci planète Mars. Mhm. et que aussi au Sénégal nous lancé suñu euh, nous Sat hmm. comme euh, premier satellite Ce premier satellite mhm. disons CubeSat hmm. mhm. parce que maintenant, avons ko am nanosat mhm. parce que dafa touti, euh, am na nous avons CubeSat en gros nous avons démarré dans les universités américaines Nous avons fait en fait parce que satellite dafa satellite ça coûte vrai satellite ça coûte des millions d'euros ou de dollars. Mm. Mais dans les universités, ils n'ont pas d'argent. Mm -hmm. Les laboratoires d'université, ils n'ont pas Donc, nous avons développer des outils, expérimenter ko xam ndax baax parce que l'atmosphère de l'espace beaucoup ak fii Fi man ak yow ñoo ngi mm. mais ci jaww ji amul oxygène do mm-hmm. noy donc y' a pas d'atmosphère. Mm. donc luy marché fi suñu caméra yi ñu utiliser bo leen yóbboon ci jaww ji du doxati parce que fofu noonu tangor ba daf jër lay def mm-hmm. seddaay ba guy lay mm-hmm. pression atmosphérique bi. pression atmosphérique. Mm-hmm. Euh, pression atmosphérique moo ngi limité ce qu'on lu ñuy la limite de Kalman. en gros boo dépasser 100 kilomètres. Mm-hmm. ça veut dire que tu es en dehors de l'atmosphère. Si bu bu wax espace. C'est mm. fan ça ñuy nekk. ci asamaan si la ci yeneen planète, yi ñun ñi nga on est un peu novice dans ça C'est fan la ñuy exactement exactement. Euh, espace espace dafa yaatu. et que espace comme le ma la dit. Nous, avons considéré sur la fédération internationale d'aéronautique Nous mhm. dañ ne boo demee ba dépasser kilomètres hmm. nga ci espace maanaam foofu noonu boo fa buñ la fa voler da flotter voilà parce que pesanteur mhm. donc maanaam suuf sa mhm. parce que ñun suuf comme suuf comme boule la dafa rond boule et que ki taxaw ci benn bul bi benn côté bi. Mhm. ak ki taxaw de l'autre opposé bu leen xëccul woon ci boppam dañuy daanu. Mm. mais suuf si lu ñu tuddee gravité. Mhm. donc ce qu'on appelle la déformation de l'espace-temps moo ngi mel ne tey bu lii bu nekkoon drap nga jël benn boule bu xaw a diis. Mhm. nga teg ko ci digg bi. Mm. da nga gis ne drap bi day déformé wu def mm. benn genre trou mais trou boobu loo teg ci wet gi day surux jëm ci boule bi. Hmm. xamal ne nag comme xëcc boobu noonu noonu la ñuy xëccee ñun boule bu trou boobu noonu moo ñuy yóbbu ci biir. donc loolu ko loolu la war a defoon L wala S. ah non fi ne li li muy wax moom toog xulil uy toog déglu. moom sama professeur physique chimie na mën naa ko tey. mais faaw mu ñëwaat ak ñun tuuti ci gaynde sat bi. ndax gaynde sat bi defe naa mooy suñu euh, première euh, expérience. Ah ci wàllum euh, espace. bëgg naa xam tuuti lan la ñu mën a jural ñun Sénégal ak lan lay tekki. ci ci ci ci Sénégal ci suñu euh, indépendance ci suñu autonomie mais tamit ci un retour mhm. sur investissement Je euh, ma am solo pour moi, C'est d'ailleurs tardé sax mhm. d'ailleurs, ko un mhm. parce que si vous avez ne premier satellite artificiel donc euh, on dit satellite artificiel parce que les autres satellites ce sont les planètes qui tournent autour du soleil etc. -hmm. et cetera un satellite, mais les satellites utilisés, qui soient... Euh, satellite télécommunication ou yeneen on les appelle des satellites artificiels mhm. parce que nit beaucoup ko fa yóbbu euh, dafa yéex pour man sax hmm. parce que premier satellite li nous considère comme premier satellite Russie ñoo ko lancé euh, en 1957 vous imaginez la ñu une boule. benn boule mhm. boule bi lenn rek la doon def da doon tourner autour de la Terre di def bip nga bip bip bip juste pour voir ne mën Ça quelque chose mu nekk au-dessus de la terre di tourner autour de la terre ba paré ñu mën communiquer ak mom parce que loolu mo ci am importance nga mën communiquer ak mom muy télécommunication nga bib bo mu doon def non dafa jomalon américain parce que c'était à l'époque l'URSS et les États-Unis donc on nekkoon ci benn euh, guerre froide bu reuy mais bib bo non américain yi dañ doon jël sen radio ci sen dëkk yi di ubbi di calculer fréquence pour mën japp jàpp bip da leen jaaxaloon hmm. c'était une grosse arme hein, ci période Bobo. période hein. boobu Mais hmm. c'était c'était bah, imagine moo ngi mel ne ku nek dans les ku dans les années 50. nga yew ko tay jox ko téléphone portable. Mm. wa day jommi. <laughs> mo tax dañuy wax né toute innovation technologique pour mm. réussir miracle Je mm-hmm. mm-hmm. lan que gëna un miracle ku nek États-Unis di wax ak yow euh, ga kay gis muy mm. wax. donc imaginez depuis les années 57 en mm-hmm. ba ngi un pays comme le Sénégal a réussir son premier lancement de CubeSat. Mm -hmm et que lolo yéex mais exploit il ne faut en fait comme nous wax buñ ko xép mhm. il n'est jamais trop tard à bien faire mhm. il ne faut jamais trop tard et que en fait le ma doon wax lancement CubeSat dafa am trois phases lancement de satellite mhm. amna début bi moy décollage lu koy yóbbu mm. man ci loolu lay liggéey manam liñu ñu tuddee fusée euh, fusée mo moy yóbbu satellite ci jawu ji mo moy yóbbu nit ci jawu ji ak euh, autre chose moo ngi auto ne oto bu lay jëlee Sénégal euh, Kaolack indi la Dakar. Hmm. fusée bi mooy oto bi. Euh, dafa am ñetti phase boo leen seetloo ci lancement lancement CubeSat euh, bi. Hmm. première phase bi mooy décollage fusée bi. lan mooy CubeSat. CubeSat CubeSat moi satellite. cube ah CubeSat. parce que d'ailleurs carré. en gros il y' a d'ailleurs dafa am méthode standard pour xam ne ci université américain yu ma la waxoon ne ñoom ñoo créé dañ ne one unit madame CubeSat bu nekk dafa am benn taille boo xam ne moom définir boo xam ne day doon 10 centimètres 10 centimètres 10 centimètres 10 centimètres 10 centimètres de chaque côté mu doon benn cube léegi nag suivant votre taille unité bi mooy one unit hmm. maanaam léegi nag am na satellite yoo xam ne yu petit la mais toujours d'effet cubique hmm. maanaam côté yëpp ay tolloo yi mën nañ nekk 3 units yi mën nañ nekk 4 units et cetera et cetera mooy unité de mesure bi mooy unité de mesure bi mooy one unit hmm. donc cube parce que dafa cubique c'est-à-dire que dafa carré moy bi Sénégal sànni bi Sénégal sànni dafa carré. Mhm. bu Sénégal sànni manam am luñu tuddee wané wuñ information yépp mais suivant information yi nga mën jël ci net bi ak information yi nga mën jël ci ñu ko sànni mën nga ci am ay information donc c'est pour ça que ci yooyu la basé pour am quelques informations parce que yépp nekk source ouverte. parce que lepp loy wax rek ci da fay nekk source ouverte. et luma ma doon wax léegi lancement bu njëkk bi moy fusée bi ko lancé. moy mhm. SpaceX moo ko le lancement a été bien fait donc le décollage c'est à ministre mhm. de l'éducation nationale partage de nos cours, c'était une fierté et mhm. ça doit être une fierté nationale Abraham Diouf quelqu'un que j'apprécie beaucoup mhm. et qui le le contre UGB non exactement euh, mais bon pas la même période ah d'accord <laughs> ça c'est sûr bëgg naa après ça formation mais mu leeral d'abord Donc, ñëw mm. donc décollage c'était réussi deuxième phase bi compliqué mm. mooy li mise en orbite Madame. gis nga nekkul ne lépp moo mën a nekk autour de la terre du wër dafa am vitesse bu mu war a am pour mu mën a nekk mën a wër suuf si euh, exemple bu ma la mën a jox mooy boo jëlee buur nga takk ko si fil ngay windeel temps yi booy dañ doon def yooyu noonu jël benn affaire takk ko bu diis jël sa kii di ko windeel di def nii léegi windeel boobu noonu bu nekkee da nga koy windeel windeel bu baax bul bi mën na rëcc dem exact mais boo ko windeelee windeel bu ndaw windeel bi du mat bul bi day ñew ci yow. Mhm. mais da nga koy windeel vitesse bo xamné dina ko mëna a atteindre. équilibré quoi équilibré loolu la ñuy tuddee la vitesse de satellisation. Mhm. et que nak loolu tamit ba légui fusée bi mo koy def moy dem surtout bu nekkee CubeSat nga xamné amul ben moteur bu ko mëna a bu nekkee né amuñ vitesse boobu noonu. Mhm. loolu tamit c'est très complexe. mais lan moy nekk ci bir CubeSat bi. Euh, dina ci ñew après. ok dina ci ñew après donc une fois que mu mettre ko en orbite donc phase une réussir nañ ko phase 2 réussir nañ ko maintenant nak mu dess phase déploiement maanaam CubeSat bi moy li nga laajte. Mhm. Euh, CubeSat bi ñoo ngi ko euh, placé ci orbite liñu ñu héliosynchrone manam euh phase bobu nonu manam bu nekkee satellite observation la moy comme sur CubeSat Sénégal donc satellite d'observation la mo lay permettre gis nga aduna bi dafa doy waar l'univers yalla daf ko bindee nu kéemaane. Mhm. suñu suuf si day wër jant bi jant bi oui. Eh, est ce que xam nga vitesse bu koy wëree Bonne vitesse la 1110 110 10 km. 100 000 110 000 kilomètres heure ah. gaaw na di loolu C'est kay <laughs> xanaa mooy melax maanaam au moment où ñuy toog ñu di wax ni ñoo voyager dans l'espace.

Lui définir bés et Adi, moi, en même temps. la terre tourne autour d'elle-même. exactement physique <laughs> euh, c'était Galilée non. Mm, non non non Galilée il avait dit la terre est ronde. et que en fait en même temps et en même temps. tour Il tourne tourner ci y a et en même temps ce satellite bu a lancé il tourner autour de la Terre Là, il y triple rotation. Mm. ñetti rotation là. moo c'est complexe. imaginez la Terre qui tourne autour du Soleil. Mm-hmm. imaginez la Terre qui tourne sur elle-même et que le satellite bi ñu comme ko tournait, tourner ci mais à l'orbite héliosynchrone Les gens, da ont choisi choisir orbite boo xam vous bu comme dans le monde ngi nii suuf mm-hmm. satellite bi avec un angle défini boo xam toujours toujours faire gis sous une souci éclairé par le soleil Manam, da ngay am éclairage constant hmm. toujours sous des l'air, leer filmer da ngay observer lu mu mën fait. donc Sénégal réussir à mettre ko foofu donc bu déployer affaire Donc, donc déploiement bi généralement ci satellite du ndaw CubeSat ça dure 45 minutes une fois que nous lançons en orbite, sur 45 minutes le satellite bi mën CubeSat bi déployé. a déployer y mais des difficultés. Il y difficulté le difficultés difficulté CubeSat donc difficulté yi moy buñ ko sané parfois mën na tourner ci bopam. comme amul benn moteur bu ko aidé mën na tourner ci bopam. donc est-ce que dina am bonne orientation pour mën xol souci? Souci ñu parce que satellite d'observation souci si lay la terre les xol. Mhm. donc euh, probablement

da ngay def dara. Mhm. mais parfois yi muy jur moo ëpp sax objectif bi nga décidé woon pour def ko. bëri na ci yooyu noonu. Mhm. Mhm. Euh, maanaam da ngay naan ne man sama objectif mooy développer CubeSat sama objectif mooy développer des mini lanceurs et cetera mais da ngay xool yu muy jur ak technologie yu muy jur ak formation yu muy jur ak euh, les nouveaux jeunes qui arrivent. un pays comme le Sénégal où on dit que 75 pour cent amuñu euh, fanweer ak juróom. donc il y a beaucoup de jeunes manam ressources humaines bi ñàkku fi exemple mhm. donc lan mo fi y moy yenn formation yi mhm. et surtout formation sur les nouvelles technologies formation sur les nouvelles technologies ça ne s'arrête pas qui informatique mhm. donc il y a l'informatique maintenant beaucoup de monde fa lañ mais il y a aussi d'autres technologies dont l'équipe mën parce que je yi je yi ñu ko formé dañu dañ leen a université de Montpellier et que pour être euh, comme li wax pour éviter de biais li ñuy tuddee biais cognitif comme man dama xaw a nekk sympathisant ci benn côté. Mhm. Pastef pour ne pas le dire. da nga nekk sympathisant. Pastef pour ne pas le dire. <laughs> am nga ci droit. <laughs> pour ne pas le dire. Mhm. donc mën nga am biais cognitif. tu vois ci parce que ñu wax ne sans le vouloir boo fa xawee fii fenn mën nga ci. mën nga bañ objectif. mën nga non xam nga mën nga bañ objectif mën nañu da nga koy def exprès mais mën nga bañ objectif dans la mesure où doo ko tay. exact tu vois Manam doo ko tey ay xaw a ki jëng tuuti sans que nga tay ko sans nga bëgg ko def et que en fait là il faut reconnaître ci ancien président c'est pour ça que foofu laa doon jëm c'est important mhm. foofu la doon jëm motax ma ma ne sama may génnee bi pour mu leer ñu lay déglu la reconnaissance pour reconnaître reconnaître reconnaître mon may def ci ancien président c'est que xaw ma ñan ko ko mhm. il s'est dit que en fait pourquoi pas Sénégal mënu ko def mhm. donc mu jël des jeunes yóbbu leen à l'université de Montpellier ñu def formation ñu ñibbisi et que ci lañ commencé travailler dans le excellente chose c'est c'est pas ça le lu baax la mhm. et que le wax ni gouvernement bi amuñu droit def plus lu gën a tuuti A mhm. amuñu droit def lu gën tout tuuti loolu maintenant damay xaar même ci ñoom ñu dem ci li ñu des micro lanceurs donc là dinañ ci revenir donc li nga doon wax léegi mooy formation mhm. donc je yi dem nañ former. Mhm. donc une fois que l'engouement bi jóg et cetera ñoo ngi commencé dinañ ubbi ay master. Mhm. yoo xam ne dinañ maîtriser la technologie de l'espace. parce que la télécommunication de l'espace parce que ce n'est pas pareil ñu ngay communiquer sur terre on ñu ngay communiquer pareil. ben non la mécanique de l'espace parce que li may wax léegi caméra bi boo ko plus dans l'espace de fonctionner. Mm. donc il y a tellement de nouvelles technologies yoo ont ne mën nañ ko et en même temps des start-up. Hmm. des start-up parce que man fi may de dafay ils ont plus de huit mille employés. Mhm. mais yéen liggéey nu mu tudd. Ariane Group. Ariane exactement. Ariane Group au mooy société européenne boo xam ne moom mooy tout ce qui est fusée. exactement et bon c'est dañuy jël ñun ñi nga xam ne des externes. Mhm. c'est-à-dire que entreprise bi de recruter ñep mo mm-hmm. ngi melni RTS mo ne mënuma recruter ça yu ma soxlaa journaliste mais dama jël ay consultants mm-hmm. di leen fay donc ce qu'on appelle mën créer loolu mm-hmm. c'est-à-dire que d'autres petites entreprises start-up qui ont des compétences variées parce que satellite da nga soxla ay compétences yu bari donc ils créer à ci côté bi et que ñu jël et que pour moi, am il faut que état bi japp ci l'espace toujours dans tous les pays dafa lié à la défense donc dans tous les pays l'espace. naka gis gis comme coow am euh, en exemple rek mhm. Mhm. Israël ak euh, ni nga xamante maîtriser na nonu armée mhm. mais armée bi ci côté bob tamit dafa melni amna am lu ci jouer oui gis nga comme euh, ni nga duggee ni ci question bi paasan gis nga manam maîtrise de l'espace surtout tout ce qui touche ay wàllu physique non. Oui. pourquoi mou lié à la défense parce que da ngay maîtriser lu ñu les systèmes de propulsion moom moo la utiliser pour lancer ay missiles Hmm. soit qu'ils soient missiles balistiques, qu'ils soient missile de croisière, qu'ils soient même des roquettes. Est-ce que le Sénégal a une entreprise pour développer quoi que ce soit dans l'armée hmm. xaw peut-être a <laughs> un journaliste il y a une équipe, peut-être un hmm. mais en fait ce que je lay wax c'est da y am un objectif n'est mooy lii mais que je lay le Le Sénégal bu décidé maintenant dans avec leur New Deal technologique. Et dans 50 ans Sénégal devra être un un pays africain devra être un révolutionnaire dans le milieu du numérique dans le milieu des nouvelles technologies tu ne peux pas parler des nouvelles technologies sans parler de l'espace ok parce que l'espace m'a permettre permettre réseau télécom. moo les mhm. permettre une fréquence des maa les fréquence qui euh, télé euh, un million par ci par mois etc. RTS donné une fréquence c'est une entreprise a lancé satellite euh, en orbite géostationnaire. donc ah, RTS il ñooñu récupérer Donc, nous, et cetera donc nouvelle technologie te boole woo espace. Mhm. donc Sénégal c'est une nouvelle technologie. new deal technologique dans 50 ans, et même dans 50 ans, c'est très loin. 2000, on est en 2024. 2030, mhm. war nañ mën am micro-lanceur. gis nga microlanceur boobu noonu boobu Sénégal décidé woon. Mhm. mën na ko jural ci tout ce qui est la maîtrise ce qu'on appelle des systèmes de propulsion. Mhm. maanaam moteur buy envoyer quelque chose. moteur madame, moteur buy envoyer quelque chose. la navigation spatiale maanaam bu ma une doon sànni roquette ba sànni yaa ngi nous permettre de calculer trajectoire pour mu mën man ce sont des technologies. Mm. donc la mécanique spéciale l'aérodynamique en gros il y a tellement de trucs qui ont ne il beaucoup maîtriser euh, ce sont des euh, outils à double usage On mën ko utiliser ci militaire les nga ko utiliser mais est-ce que le Sénégal peut a defal loolu boppam moom mais en fait. sans partenariat. gis nga li il ne faut pas ki warul limiter pays limiter mhm. ambition exact et que comme ça maa ngi des fi tout à l'heure ci euh, des brillants scientifiques euh, ou euh, ingénieurs partout des Sénégalais partout mhm. dans le monde mhm. en fait moi je pense que lu manqué mooy volonté bi ak ak ambition parce que en fait des personnes, man ou d'autres parfois ce n'est pas l'argent qui les intéresse je te donne un exemple passion passion là. sûr man bu may xëy 7 heures mhm. quand tu es cadre en Europe une contrainte horaire une contrainte horaire man je ma xëyee 8 heures mhm. bien entreprise bi non 7 heures de moins entreprise bi 19 heures je tëj man ma ba 22 heures di liggéey ci sama projet Je mhm. du ma fay parce que tu es cadre à une heure supplémentaire pourquoi ma koy def parce que changé wul ci sama salaire passion passion là. gis nga paasan da trouver une affaire. Mhm. boo question difficulté problème physique physique nga envoyer la réponse nous vérifier que c'est ok. Mhm. nga content mhm. tout pour le de ci toilettes, <laughs> jubilé. <laughs> mais koy waral. Uh-huh. ñi des satisfaction personnelle c'est satisfaction personnelle mais bonne satisfaction personnelle que mën a am bu je bu nekkee Sénégal moo réussir loolu noonu. gisuma ko. Mhm. gisuma ko ba ñu lancé suñu fusée le 9 juillet Ariane 6. ça fait plus de 25 28 ans Ariane 5 nous avons lancé en 1987 97. donc 25 ans après si l'Europe réussit à lancer ses fusée Ariane. 25 ans après. plus 28 ans c'est de 97 jusqu'en 2024, le 9 juillet. Mm. Et Man j'ai eu la chance de faire partie de Nuko développé. Donc, fierté bi ma ci parce que moi cette fierté scientifique là, fierté technologique mm-hmm. et que j'ai eu la chance de faire partie de ce lot. Donc, imaginez taille, vous n'êtes ben fierté que Sénégal m'a lancé un micro lanceur comme ça. en 2030. En 2030. En 2030. Et je vous le dis, j'ai une certitude que c'est possible. Ah Comme, comme disait ben le politicien, les yeux entre quatre yeux, c'est une possibilité. Comment comme ce une possibilité bah, Comme sur <laughs> la pas mon union de mais je vous dis juste que volonté est à une. Mhm. De, se dire que, par exemple, le <clears throat> Sénégal, nous avons besoin. Mhm. <laughs> c'est un pays sous-développé. Qui a dans partout faut toucher des métiers, comme nous koy mhm. <laughs> dans le wax li Le monde wax vous bu pouvez changer président mhm. donc vous ne devez ba changer. Dans faral di wax ne bu pas changer vous changer direction mhm. parce que en fait vous na amélioré. améliorer tout était bien bu tout était nominal vous ne changez rien du tout quand on change c'est parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas il y a des choses qui xam ne en à améliorer disons, pour, être poli. Mm. donc vous nous de président c'est pour ça. Mm-hmm. mais si suñu président bu di wax bu que l'aérospatiale c'est quelque chose de ramener c'est important pour un pays. Mm-hmm. je dis l'aérospatiale dans son ensemble. donc là j'inclus les plus satellites. Mm-hmm. les plus lanceurs etc. mon est de damay jël budget du wax Sénégal c'était 7000. milliards milliards mais après nous avons ñu 5 5000 milliards et quelques. donc basé sur 5 000 milliards gagner 4 000 milliards, je vais prendre un millième. Mm-hmm. Un millième, je vais l'investir dans l'espace. Avec les plus mon dur. Ça veut dire que ça tourne autour de 5 milliards, etc. Et quand tu 5 milliards par an, donc en 5 ans, en 6 ans, ça fait quoi Ça fait 30 milliards. Mm-hmm. Donc par exemple, en 6 ans. gagner 4 qui investir. Et tu investissement il y a la partie satellite. Parce que comme nous, nous avons une dynamique. Donc l'ancienne, c'est une première et que nous seen CubeSat pour dire c'est ci première expérience c'est mhm. une première expérience. et dans l'échelle comme nous dans l'échelle euh, de développement du satellite plus de 60 ans après c'est rien du tout c'est très petit. Mhm. donc après dañuy progrès dañuy gën a ou di mhm. donc ils ont auront besoin de plus d'argent plus de fonds. Les 5 milliards yi mu partie bi investir sur les satellites. Ben bi dama les investir sur le micro-lanceur madame quelque chose de bien? kilo kilo jusqu'à 15 millions kilo euro CFA dollars non 15 millions de CFA mhm. mini kilo en fait tout ça kilo et il faut combien de kilos en fait ça dépend des satellites 500 kilos. Hmm. c'est-à-dire qu'un lanceur un lanceur comme ça comme une lanceur un lanceur pour mu ça dépend si fan euh, ça peut coûter entre 80 80 euh, millions d'euros ça veut dire que. 70 euh, milliards 70 milliards. ou 75 milliards. jusqu'à jusqu'à 120 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'en fait... entre, 110 milliards. Voilà, disons entre 70 milliards jusqu'à 110 milliards. Donc il y a beaucoup d'argent. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc Sénégal, warul warul mëna bayyi qui biraw ko comme euh, évolution technologique yi. daf ci war a bokk. Mm. bu mu xaar ba ci bokk. parce que si naan mënul jur dara rek ko xamul moo wax. mais concurrence bi rude na de. mais Euh, NASA mi ngi fi di euh, Europe su ma juumul am seen centre national d' études mhm. aérospatiale mhm. euh, gis naa Elon Musk mi ngi mhm. wax que ne dina organiser sax ay voyage dans l'espace. alors ñun est ce que du ñu soxla kon ñu booloo ñun Afrique pour mën a am euh, benn propulsion boo xamante ne dinañu gën faciliter peut être suñu suñu ay yenn début ça c'est l'idéal. Hmm. ça c'est l'idéal. Hmm. L'idéal idéal l' idéal ce que ce que voulait mais booloo aka moo jafe hmm. <laughs> bolo wax ko ni yomb na. l'Europe l'on réussi non. Hmm? Europe réussir na Europe réussir mais mais yombul. Hmm. mais Europe num ko réussir sax nekul ne de ci bokk. ci par exemple. Euh, ci euh, ni ñu Ariane Group ci Microland. donc hmm. il y a que 13 pays je ne sais pas qui finance là-dessus. et que comme wax dafa yomb. comme nous kay euh, waxe je l'apprécie beaucoup c'est son expression Guy marissagne. Sagna. muy di muy wax né en fait jëf mooy nattukaayu dëgg c'est-à-dire que mën nga wax ni rek mais tant que jëfoo li nga sa wax ci wax ci mm-hmm. et que en fait mbooloo boobu moo fait. et en même temps boo seetloo en Europe aussi dëkk yu bëri ñoo ngi commencé développer des startups et petites entreprises mm-hmm. yoo xam ne dañuy développer ce qu'on appelle des mini lanceurs Les ay lanceurs yu ndaw des mini lanceurs ay startups hein, ay entreprises yoo xam oui mais ce sont les états qui les accompagnent il y a toujours les états qui les mm-hmm. poussent parce que mais Sénégal le lanceur lourd de mini lanceur il va lancer un micro lanceur. Hmm. parce que moi, lañ hmm. un micro lanceur boo xam lancer un satellite de 1 kg jusqu'à 200 kg hmm. dans l'orbite basse donc c'est faisable et que le mën le le jural lu ma fi les wax technologies, il y a une technologie militaire Mm-hmm. Imaginez, dans 30 ans, Sénégal commence à des entreprises qui seront liées au ministère de la Défense, qui, peuvent, dans l'avenir pourraient créer leurs propres roquettes, qui pourraient créer des trucs. Mais pourquoi pas mm-hmm. Mm-hmm. Ambition pays, vous commencez à réduire. damay gis tamit ñu ne ci satellite euh, agroéconomie euh, bi am na mm. ci solo mm. maanaam mbay meek yooyu mm. euh, mën na koo gën a nga ñu wax rek ci nan la satellite bi euh, en fait ba ma doon jàng. j'avais euh, ba ci après. Mhm. j'avais j'avais euh, fait un mhm. stage de fin d'année mhm. donc j'étais à Normal Sup Normal Sup de Cachan donc comme vous l'avez dit tout à l'heure j'ai fait une bonne partie de mes études à UGB après me dem France côté mes études études, Normal Sup donc euh, école normale supérieure de Cachan, mhm. des écoles euh, mhm. donc ça fait fin d'étude on est presque euh, au terme de l'émission bah, nous mhm. bah, fin c'était que en fait nan la observé sur les terres cultivables avec un radar avec un satellite etc. Donc, di il s'agit bien les souffles arables li mhm. ñuy tuddee ñu ma nuñ koy waxee ci ci ci ci olof suuf yi nga xamné ne war nañ ko mëna bay béy mhm. suuf yu nangu ak suuf yu nangu mhm. ak suuf yu nanguwul rien que de l'observation hmm. donc qu'il soit une observation radar wala mu nekk observation satellite hmm. donc buñ amé des satellites d'observation comme ñu nga ko waxee mën la jural yooyu noonu nga mëna a xam les terres arables dina la mëna a jural wàllu sécurité xam luy dugg luy génn ci sa réew dafa bëri lu mëna jural Sénégal et que j'espère que ba ci dynamique bii mhm. euh, gouvernement bi <coughs> danañ ci danañ continuer et que pas bi gouvernement bu. état continuité la. continuité la nañ ko continuer. Euh, Baye Assane <laughs> il faut ñu ànd ak euh, dans l'espace espace ndax projet Elon Musk bi sénégalais tamit réussir ko.